ñun suñu ministère dañu japp ni mbiru numérique tay war na bokk ci mën naa ni levier yi nga xam ne war nañ ci sukkandiku pour former ñi nga xam ne dañuy dañu dëkk ak la laago mais également ñu permettre leen seen avenir ñu mën ko assurer moo tax tey ñu jël initiative ci ñëw ci INEFJA mais également ci yeneen institut yi nga xam ne dañuy jàppale xale yi nga xam ne dañuy dund ak way laago ñu former leen mais également wutal leen matériel ak ay équipement fii ci INEFJA nag mën naa ni sawar nañ fi ñëw ndax bon Thiès la bokk ndax loolu chance bu mag la ci Thiès mu abrité école bi mais également INEFJA wax naa ko directeur bi man dama fi am ay mbokk man dama fi am ay xarit dama fi am ay njaboot yàlla dogal na ci sama parcours élève ci lycée Malick Sy dama amoon xarit bu ñuy wax Omar Lo tey mu ngi France ñoo bokkoon classe seconde ba terminale bis bu nekk ñoo doon ànd ñu jógee li sa Malick si ma ko yóbbu seen kër bis bu nekk ndax dañu sori wuñu woon kër maa ngi dëkkoon Lazare moom mu dëkk randu leen mais également su feebaroon wala mu ñëwul damay ñëw fii INEFJA di ko partagé cours yi di ko dicté muy bind moo tax sax commencé woon na mu initier pour ma mën a bind braille donc man mën naa ne fii dama ko xam bu baax a baax mais également ma xam yéene bi nga xam ni président de la république am na ko ci xale yi fi nekk ndax vraiment conseil des ministres ci la joxe ay orientation D'ailleurs, di ministre de l'Éducation nationale lu mu mën a école bi na ko ministre de l'Éducation nationale également ñëw na fi def réhabilitation mais également ci équipement ñun tamit ñu ñëw domaine domaine numérique ñu xam domaine dina formation xale yi jàppale pour ñu améliorer capacité ñu ñëw indi fi symbolique dina mën a jàppale administration bi ci ni muy jàppale xale yi ci mbiru njàng mi mais également ci seen initiation ci mbiru informatique donc loolu moo tax ñu ñëw tey euh, def remise bi mais également remettre ay attestation ay xale yoo xam dañ leen doon former ñi nga xam ne nekk nañ ci centre albinos yi ak ñi ne ci centre handicap bu moteur yi yooyu yëpp daal jumtukaay yooyu lañ dajale woon tey mën naa ni indi ko fii ci INEFJA ñuy nag di encourage xale bu baax di leen wax nii euh, lii lu yàlla indi la mais suñu boroom du ni la ñuy wax du li ñuy wax du tëj bunt tëj fenêtre lii bunt la rek mais am na yeneen possibilité yu leen yàlla may ñun ñi nga xam ne jàng nañoo wala bokk nañu école ak ñoo xam ne yàlla dafa defoon ñu sëgg xam nañ li leen yàlla mooy ci beneen côté bi ba tax na koon da ngeen gëm seen bopp xam ni seen avenir incha allahu rabbi ngeen gëm ko concentre wu jàng xam ne yàlla mun na leen defal sutura sànq wax nañ ma seen euh, salle bi nga xamni ni mu ngeen mu ngeen tuddee saalu mën naa ni télécommunication mën naa ni salle bi dañ koy war a tudd léegi salle numérique dinaa leen ko équiper dinaa leen renforcer le matériel bi mais également jumtukaay yu xara yu bees yi nga xam ni moom la moom la directeur bi wax ak euh, mën naa ni encadreur bi yi mu soxla ci ay outils yu bees ñu équiper leen ko ba mu xam day nekk salle bu mucc ayib. ba tax na loolu directeur maa ngi ciy dalal sa xel nga xam ni côté boobu dinañ la ci jàppalewaat soo ñu defalee requête bi nga xam ne li nga soxla ci salle boobu pour mu moderne li nga xam ne yëpp soxla nga ko incha rab bi ci budget 2022 bi dinañ leen ko réaliser nu mu mu nekk salle bu ci ayib vraiment ci dalal sa bu baax dina la féliciter aussi monsieur le directeur ndax wax naa leen ni man dama bëri ay xarit ci école bi mais également au oo du gouvernement am naa xarit yu bëri yoo xam dañ may wax sa taxawaay ak sa ñeewantal bi nga am ci xale yi ak yéene bi nga xam ni am nga ko ci école bi nga la ciy ñaanal suñu borom mu jàppale la ci mu gën la taxawu